Serigne Cheikh Rokhaya Diop nag. jarbaatu sëñ Modou Moustapha. jarbaatu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké la. waaye baayam daa tërbiye Cheikh Ibra. waaye baayam daa tërbiye Cheikh Ibra. moo tax mu yaroo fa. moo tax mu yaroo fa. Cheikh Rokhaya nee na. Cheikh Rokhaya nee na. danoo toog ab diir di tàngal toog ab diir di tàngal café. Cheikh taxaw fuddu. Cheikh Ibra Diop taxaw fuddu. ah jërëjëf doy na kiimaan. ne ah mbir mi de man de sëñ Bamba damaa man de sëñ Bamba damaa xeeñ lool fi mu ne. waaye jóg leen. daañu jóg leen. ngeen daxaw ci buntu kër bi. dem taxaw ci buntu kër gi. xoolal ma ba xam. xoolal ma ñooñu ba xam. sëñ Touba de xeeñ na ma xeeñ goog. sëriñ Touba xeeñ na ma xeeñ goog. wu des na ko fi gis. faaw des na ko fi gis. ñu jóg ni ko ñun de gisuñu kenn. ñu jóg ni ko ñun de gisuñu kenn. ba mu ko defee ñaari yoon ak ñett. ba mu ko defee ñaari yoon ak ñett. ñu ne ko ñun de seen nañ gawar goo xam ne. ñu ne ko ñun de seen nañu gawar goo xam ne. da ca digg ba. kàcca digg ba. façon xac la war. façon xàcc la war. sol yor sol daraay baxa. sol daraay baxa. te it mel na ne jege nañu. te it mel na ni jigéen nañu. mu ne ñëpp daw gàttandu ji. na ñëpp daw gàttandu ji ko. ba ñuy jegee ba jege nag. ba ñuy jigee ba jigee. ña ko ca xam. ña ko ca xam. daw dikk ni ko sëñ Fallou. daw dikk ni ko sëñ Fallou. mu daal di tëll di ko gàttandu mu daal ni tëll di ko gàttandu sëriñ Fallou daal wàcce ci fas yi sëriñ Fallou wàcce ci fas yi daal di maraakis yu mboq yu tuut yooyu mu sol daal di maraakis yu mboq yu tuut yi mu sol da koo daal di summi ngir Seex Ibra da koo summi ngir Seex Ibra Seex Ibra daal koy fëkk Seex Ibra daal di koy fëkk daal na gaañe daal ni gaañi ñetti jéego yooyu mu dox ñetti jéego yooyu mu dox wut leen lëf këppal ma ko wut leen lu ngeen ma ci këppal maa ngi ñëw maa ngi ñëw daw ak moom ci biir daw ak ba mu génnee. daf na jéego yooyu. def ne ah yooyu. nañ ko ubbi. nañ ko ubbi. te woo tund wépp. te woo tund wépp. te sàmm ko. te sàmm ko. mu bañ a gaaw a far. mu bañ a gaaw a far. ndax ku sa dal ci tànkum neenu fëli lu fi suuf. képp ku sa bët teg ci tànkub neen bu Cheikh Mouhamadul Fadal bii ci suuf. jégal nañ la. jégal nañu la. loolu laa ci jublu. loolu rek laa ci jublu. waaye nag gisee naa ci kiimaan de. waaye nag gisee naa ci kiimaan de. doom yàlla bu mu gaaw. ah doom yàlla bu mu gaaw. waaye bu ñu demee bañ ne doomi Serigne Touba taxawatul ci kaw suuf. waaye bu ñu demee bañu ni. doomi Serigne Touba taxawatul ci kaw suuf. kay jëkk a taxaw. kay jëkk a taxaw. ci ab sëtam. ci ab sëtam. yilif yoon wi. yilif yoon wi. koo kale. koo kee. Fallilu mii doon bàyyi. Fallilu mii. muy doon bàyyam ah nee na loolu Cheikh Ibra ko wax te sëñ Bamba yi te sëñ Bamba yi am na ci ñoñ am na ci ñoñ daanaka sëñ ah, maguñu sëñ Baara daanaka maguñu sëñ Baara te sëti sëñ Tuubaa yi ma xam sëñ Baara man te yi si ci sëñ Tuubaa yi mu xam yi ma xam man yi mu xam moom sëñ Cerno dañ mag sëñ Baara dañu mag sëñ Baara ñu bari bu ma leen ko laajee duñ ko wax ñu bari bu ma leen ko laajee duñ ko wax man nag xam naa ko man nag xam naa ko fukki sëti sëñ Tuubaa fukki sëti sëriñ Tuubaa ak benn ak benn mag nañ ko yoo xam ne mag nañu sëñ Alaaji Baara yoo xam ne bu fi nee newoon bu fi nee newoon kon lii du am du am kon lii am du am mu ngoog kon mu ngoog kon na ka fab doom ya defloo ji leen leneen kon na ki fab doom ya defloo ji leen leneen ba ñu jeex ba ñu jeex mu fab sët yëpp mu fab sët yëpp fukk ak benn fukk ak benn def loo ji leen leneen def loo ji leen leneen dëpp ko fii ci jamono ji dëpp ko fii ci jamono ji kooka lu mu fàggu la kooka lu mu fàggu la lu mu tànn la lu mu tànn la lu mu xam la lu mu xam la xanaa noo ngi ñaan ah suñ Ceerno nee na ñoo ngi ñaan ci darajey koo kii def loolu yi ci darajey koo kii def loolu yi te juboo ceeg sallallahu alayhi wa sallam te juboo ceeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam juboo ceeg sunu borom juboo ceeg sunu borom yàlla nañ ca jubóog sëñ Bamba yàlla nañ ca jubóog tolloog sëñ Bamba. loolu nag mooy ànd ak moom. loolu nag mooy ànd ak moom. ànd gu mat sëkk. ànd gu mat sëkk. jox ko sunu lépp. jox ko sunu lépp. te di ko ñaanal. te di ko ñaanal. aw fanam gudd. aw fanam gudd. ay cëram wér. ay cëram wér. yéeneem ci lislaam. yéeneem ci lislaam. ak liggéeyu sëñ Bamba. ak liggéeyu sëñ Bamba. ak liggéeyu wayjuram wi mu sëñ Bamba ne woon lu ne ci moom danaa ko def. ak liggéeyu wayjur wii wayjuram wii sëñ Bamba noonu. lu war ci moom dinaa ko ci def. ak magam ya waroon a toog sax te tooguñu. ak magam ya waroon a toog sax te tooguñu. luñ fi waroon a def. ñu fi waroon a def. yal na sottee ci loxo. yal na sottee ci loxo yi Alaaji Baara. te ñun ñi ko fekkee ñëpp fi mu ko fekkee yëpp kat. te wul yàlla man na man man nañoo fekke loole man nañoo fekke lu raw loole te it liggéey bi muy liggéey te it liggéey bi muy liggéey yàlla na sotti coleet yàlla na sotti coleet te benn dara bañ ko dog te dara bañ ko dog te sama borom may nu kattan gog te sama borom may nu kattan gog akum xel akum xel ak sago ak sago akub yar akub yar ak i teggin ak i teggin ak yéene ak mën a jëf ak mën a jëf ànd ak moom ca loola ànd ak moom ca loola kenn bañ a wuute te kenn bañ a wut ku ne la nga ci bëgg ku ne la nga ci bëgg sa borom defal la ci lu kawe sa njort sa borom defal la ci lu kawe sa njort bi ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam barke si Ahmadou Bamba barke si Ahmadou Bamba barke baayam tedd bi Mouhamadul Fadi barke baayam bu tedd ba Cheikh Mouhamadul Fadal ñoo ngi ñaan ñoo ngi koy ñaan Cheikh Moustapha mi itam Cheikh Moustapha mi itam am nañ ci moom yaakaar am na ci moom yaakaar ndax nit ñaar rek laay wax ne moo am ceeru na nee na nit ñaar rek lay wax ni moo am koo xam ne si loo baax baax koo xam ne loo baax baax boo xefee say bokk gën la boo xefee rek say bokk gën la kooku lu mu baax dañ koy jëy kooku lu mu baax dañ koy jëy waaye du waaye doyut daa bokkut ak koo xam ne daa bokkut ak koo xam ne nag loo bon bon dañ laa xamut loo bon bon dañu laa xamut waaye yaa gën say bokk waaye yaa gën say bokk nit kon lu mu bon bon moo gën i bokkam nit koo xam ne lu mu bon bon moo gën i bokkam lu mu baax doy na lu mu loo baax baax boo wutul say bokk gën la koo xam ne loo baax baax du te say bokk gën la boo wutul say bokk gën la boo say bokk gën la loo baax dëgg. ah loo baax dëgg. te moom ci la bokk. te moom mii ci la bokk. kon nag ñu ko ñaanal. kon nag ñu ngi koy ñaanal. sa borom musal ko ci ndox. suñu borom musal ko ci am ndox. kajoor dañoo léeb ni. ndax kajoor dañoo léeb ni. ku ñu xam foo doo jëm. ku ñu xam. foo jëm doo àgg foo jëm doo àgg. nit ñi xam foo jëm doo àgg. nit ñi ku ñu xam jëm doo àgg. moom nag yal na àgg. nag yal ñëpp xam nañ fi jëm nag. ñëpp na xam nañu fi mu jëm. ndax aw na siraatal mustaqim. ndax aw na siraatal mustaqim. te wàcc te wàcc te Sëriñ Tuubaa Sëriñ Touba. guddi gi mu mujj fanaan jolof. guddi gi mu mujj fanaan jolof. julli fa gee ba noppi. julli fa gee ba noppi. su suñuy bàyyee nga ca gannaaw. nee na suñuy bàyyee nga ca ginnaaw. dafa wax ne. dafa wax ne. dikki leen ma dénk leen juróom-benn. dikki leen ma dénk leen juróom-benn. ku bëgg juróom-benn yëf. ku bëgg juróom-benn yëf. faaw nga def juróom-benn yëf. faaw nga def juróom-benn yëf. damay bëgg a dellu ci biir réew ma nag. damay bëgg a dellu ci biir réew ma nag. li may liggéey. li may liggéey. la ca desoon. la ca desoon. foofa laa ko yàggalee. foofa laa ko yàggalee. te bëgg leen a wax. te bëgg leen a wax. nañ fa war a nekkee ak yéen. fa war a nekkee ak yéen. damaa bëgg ngeen yëg ni. ngeen yëg ku bëgg a jege sunu borom. ku bëgg a sunu borom. na nga dëkkee jàng alquran. na nga dëkkee jàng alquran. ku bëgg booy faatu kenn du la isaab. ku bëgg booy faatu kenn la isaab. deesu la isaab deesu la asaab deesu la asaab deesu la xiqaab deesu la iqaab del julli ci sallallahu alayhi wa sallam del julli ci yenent bi alayhi salaatu wa salaam loo man ak loo manul loo man ak loo manut te loola la ngeen ca war a def te loola la ngeen ca war a def defal naa leen ko yéen ci xasayid yi defe naa defal naa leen defal naa leen ko ci xasida yi na ngeen sax ci xasayid yi na ngeen sax ci xasayid yi ku ci bëgg alal yoo xam ne dootul jeex nag ku ci bëgg alal joo xam ne dootul jeex alal kat alal kat mën ko wut man ko wut. ak man ko denc. ak man koo denc. bu ko am. taxul nga am ko de. ku ci amum xaalis ku mu mën a doon. ku ci amum xaalis ku a doon. na nga ca fàgguwaale a wax. na nga ca fàgguwaale yii muy bëgg a wax. di ko wut nit yu jóg di ko wut moom xaalis yu ne. ko am. fukki nit ñe duñ ko am. koo ca am ko ca am ku ne it. xamal ne dafa gaar fa yow. xamal ne dafa gaar yow. waaye taxoo koo jóg. waaye dafay jaar rek. bu dee jaar rek. boo gaawul. boo gaawul. moom mu gaaw. mu gaaw. gaawal def ci lu baax. gaawal def ci lu baax. mbaa mu dem. mbaa mu dem. bu xaalis ba demul. bu xaalis ba demul. yow nga dem. yow nga dem. te ko am ku ne. ko am ku ne. dee ci seetlu lii ma li bëgg a wax. dee lii muy bëgg a wax. waxtu wu ñu la roobee ba ñu la roboon wan la gannaaw. waxtu wu ñu la roobee. ba ñu la roboon wan la gannaaw. malaayika yi lay jëkk a song. malaayika yi lay jëkk a song. yaar lañ lay laaj. yaar lañu lay laaj. sa bëjaaw bii. waaw sa bëjaaw bii. su loo newoon ba bëjaaw. ci loo newoon ba bëjaaw. kawar gu ñuul nga fi indi woon. karaw gu ñuul nga fi indi woon. te da nga ko wax. ah te te doo xellale doo xalaat doo xalaat keneen du la ko waxal keneen du la ko waxal inna samha inna sam'a wal basara wal basara wal fu'aada wal fu'aada kullu ulaa'ika kullun ulaa'ika anhum mas'uula ahlu masuala loola cay am loola moo cay am cër bu lay jóg di waxal boppam nee na cër bu lay jóg di waxal boppam wërsëg wii nga fi war a bàyyi nag wërsëg wii nga fi war a bàyyi nag daañu la laaj daañu la laaj benn fiftin bu ne benn fiftin bu ne cosaanal noo ko amee luy cosaanul noo ko amee sëriñ Tuubaa ko wax de sëriñ Tuubaa nee na luñ la sonal ci laaj gi noo ko amee ten lu ñu la sonal ci laaj gi noo ko amee daañu la sonal lu ko ëpp ci ci sànku ci lu mu sànku dinañu ci li ko ëpp ci li sànku nu mu sànkoo wala seen yakanisuuna sahaba wal fillata wala yanfiquuna fi sabilillahi fabashirhum bi asaamin alim yàlla ko wax. waaw loolu ayatul alquran la a kenn nee na yàllaa ko wax. di dajale nag alal joo xam ne. nee na di dajale nag alal joo xam ni. la ca ëpp liwut. la ca ëpp lewut. te it xool rek nga cay def. te it xool rek nga cay def. du ci jëm ci yàlla. ah dara du ci jëm ci yàlla. dara jëmu ci ci farata. dara jëmu ci ci farata. dara jëmu ci ci sëñ bi. dara jëmu ci ci sëriñ bi. dara jëmu ci ci bokk. dara jëmu ci ci say bokk sa bakkanu bopp nga ci jiital sa bakkanu bopp nga ci jiital ku ci fanaanoo fukki dërëm te loolu ne ci yow ku ca fanaanoo fukki dërëm te loolu ne ci yow benn sëriñ bu la mën a tax a mucc amul benn sëriñ bu la mën a tax mucc amul loolu alquran wax sëriñ Tuubaa wax ko loolu alquran wax sëriñ Tuubaa wax ko looloo mat a gëm leneen mat la gëm looloo mat a leneen mat la gëm sëriñ defar sëriñ Tuubaa defar na lépp sëriñ Tuubaa defar na lépp dañ koo miin lool dañ koo miin lool waaye ka mu defaral lépp rek waaye ka mu lépp moom ka nekk ca lu baax rek ka nekk ca la baax rek sax ca sax ca xamub safaan xamub safaan te génn génn ca mucc ci loolu rek loolu mooy tax mucc wallahi laysa yanfahu sax saxadaa inde uddo dem si xarulu daa waaw Sëriñ Tuubaa wax yooyu bayit nee na waat naa ci màggu sama borom nga man si Ahmadou Bamba ne dara mun la jëriñ ab jaam ëllëg fa wàccu bàmmeelam nga lu lul fekkul mu jub jërëjëf te sëriñ Falilu ñëw na fi Sëriñ Tuubaa ne ko téere boobu ñu wax xaamus laa bëgg bu fekkee ñu am na fi ndaxte ñu dimbali ma ci sëñ Fallou ne wax naa ko ba noppi waaye bu ma yëgoon ko wax ndax daf ne tekk tekkeelu yoo xam ne yàgg na tekk tuuma maa tiit mu ne ma gees ne la waxee dooyee ma ne ko wax ah am tuuti rek ma ca si jëkk dañ ñoo ba tegi waxu ci téere yi te téere yi bale waaye sëñ Tuubaa lu wuti loolu lay jóg di ko gàttal daa daje téere bi suñu tubu daal na ko ko jab sëñ Fallou ne ma yàlla loxo daal ko sànq ma déet ma la fekk te dama ko naroon a ëmb tamit ma ne fekk ba mu yàgg ma ne seetal ma ci baatu bu xuddan dafa naa ne daal na xale daa ne gay rek laa ca yem na teg sama temps loxo ci na yokkee tolloog moom ne ko mi ngi mën a àggal suuf rek àggal suuf a gànnaaw bi suma doy na su ko baax ma ko kay mbakk mu ne xaw ma loo ci seet nag ak loola ci tax a jóg waaye jub rek jub daal ko ma fëlil lu garab googu yi ñuy wax roon xàmmeegun nga ko yow ah garab googu yi ñuy wax roon ndax xàmmee nga ko waaw mu ko ndax garab ñuy wax ron ndax xàmmee nga ko ma ne ko xam naa ko bu baax balays mu ni ko xam naa ko bu baax balays mu ne ko gisagun nga genn gone léeg bay jàngi yéeg ci ron mas ngaa gis genn gone gu léeg bay jànge ab yéeg ci grona mu ne ko déedéet mu ne ko déedéet mu ne ko jub ga rek mu ne ko jub ga rek moo ko tax a mucc kon nag fexe leen ba mucc leen ba mucc nee na alal jooju ne ku koy wut te ba koo bari le nee na alal jooju ku koy wut te ba koo bari loo am delloo ko sa boroom loo am delloo ko sa borom loolaay tax mu bari loolaay tax mu bari mooy taxit nga mën koo dugal ci lu lay jëriñ mooy taxit nga man koo dugal ci lu lay jëriñ tey mucc ci lay lore tey mucc ci lu lay roy lor daal di wax ne daal di wax ni ku bëgg a àndandoo nag ku bëgg a àndandoo nag deel am ci ngir deel aw ci am ngir ngir ak ñel rek a fi ne ngir ak ñel rek a fi ne ñel woowu nag ku ci jaar ñel woowu nag ku ci jaar lii ma lay bëgg a wax dana la ma wax dina la dal pakk dana la fel pakk dina la fel dég jam la dég jam la loo rot le kenn du ko for loo rot le kenn du ko for kenn du la jot ba di la yóbbaale kenn du la jotit ba di la yóbbaale da nga weesu dëkk ba nag di nga weesu dëkk ba sonn lool sonn lool sonn lool te ñàkk aw ci yoon la te ñàkk aw ci yoon moo la ko waral mbaa nga sonn lool mbaa nga sonn lool te goo ci dëkk ba te àggagoo ci dëkk ba da ngaa awul ci wa ci jëm da ngaa amul awul ci yoon wa ci jëm loola wax ci loolu moom loolu la wax ci loolu yi. loolu la wax ci loolu ku bëgg a àndandoo. ku bëgg a àndandoo. deel am ci ngir. deel aw ci am ngir. nit dana la jot. nit dina la jot. baa nga jot nit. baa nga jot nit. ku bëgg a mucc nag ci yéen. ku bëgg a mucc nag ci yéen. xeeti tooñ yëpp na nga ko wat. xeeti tooñ yëpp na nga wat. ku bëgg a noppalu ku bëgg a noppalu yëpp. xeeti fayonto yëpp na nga ci mucc. xeeti fayonto yëpp na nga ci mucc. kuy tooñ. kuy tooñ. kenn mënu laa tax a mucc. kenn mënu laa tax a mucc. kuy fayu. kuy fayu. kenn mënu laa tax a noppalu. kenn mënu laa tax a noppalu. loolu la fa wax keroog. loolu la fa wax keroog. kon nag kon nag. yëf yi moom du doy. ah sëñ Thierno nee na yëf yi du doy. Eh, li ci des rek. li ci des rek. mooy sant ñëpp. mooy sant ñëpp. sant ñëpp laat mi. sant Cheikh Abdoul Ahad mi. di doomi Cheikh Mouhamadul Fadil. di doomi Cheikh Mouhamadul Fadil. ñëpp am ci moom yaakaar. ñëpp am ci moom yaakaar. man lii daana ko def waaye tey laa ci ma sa yem. Ah nee na lii daana am waaye tey la ci ma sa yem. sant naa ci yàlla it. sant na ci yàlla it. di nga xamee ne waa kër Sëñ Fallou ñëpp. di nga xamee ni waa kër Cheikh Mouhamadul Fadal yëpp. moom dong laa ci defee miin. moom la ci defee woon a miin. te defee newul woon. te defee newut woon. loola ko waral. loola ko waral. kon suñu dajee tey. kon bu ñu dajee tey. da nga xam ne moom xamante am na ñàkkoon a gisee rek am ah. da nga xam ne moom xamante amoon na ñàkkoon a gisee am ñu ngi sant bu baax ah Mbacke sëriñ bi nee na mi ngi la ciy sant bu baax te lii sëñ Moustapha def te nee na lii Cheikh Moustapha Mbacke def ku sant Mbacke ku ne war na la ah ku sant Mbacke ku ne war na la suñuy baay ak suñuy maam de dañ daa seetante suñuy baay ak suñuy maam de dañu daan seetante dañoo bokkoon daara fii ci Touba ñoo bokkoon daara fii ci Touba bokk daara ndaam bokk daara ndaam ànd ak sëñ Bamba dem Gànnaar. ànd ak sëñ Bamba dem Gànnaar. ànd dem Jolof. ànd dem Jolof. ah Baye wax na ne. ah sëñ Thierno nee na way juram wax na ni. moom lañ jëkk a jox Serigne Touba bi ñu sancee Touba ba noppi. moom la ñuy jëkk a jox Serigne Touba bi ñu sancee Touba ba noppi. fasu naaru góor la ko baayam booleel. fasu naaru góor la ko baayam booleel. ak lëf ci xaalisum ngurdu. ak lëf ci xaalisum ngurdu. ak takkaale yaayam. ak takkaayi way juram mu jigéen. taalibe bu ñu naan galo ba. ak taalibe bu ñuy wax galo ba. yooyu la sëñ Mbacke Kajoor fap. non yooyu la sëñ Mbacke Kajoor fap. jébbal ko Serigne Touba fii. ko Serigne Touba fii. sëñ Omar nee na nii bi ñu denc sëñ Bamba. sëñ Omar Mbacke way juru Serigne bii di wax nee na néeg bii. ñu denc sëñ Bamba. ñu denc Serigne Bamba. nee na foofee fanaan naa ko ak moom fa ko fekk keroog. nee na fanaan naa moom ci néeg boobee fa la ko fekk keroog. te boobu léeg la gën a fonk. te nee na booba néeg la gën a fonk. nee na ca fajar ba muy julli ji. nee na ca fajar ba muy julli ji. taaj na ma kulub yàpp. taaj na ma kulub yàpp. dem jël si. dem jël si. niit ko ci ay sondeel. nit ko ci ay sondeel ni ko Omar dangaa saytu ndawal gi rekkam am laal nga ci ni ko Omar dangaa saytu ndawal gi rekkam am laal nga ci ma ne ko lekk ci ba ma ne ko lekk naa ci ma suur ma dégg ciw làmmiñam ma nee na mu dégg ciw làmmiñam mu ni Moodu gi mu ni Moodu gi wax ko Moodu gi mu ni Moodu gi ba muy ñetti yoon ba muy ñetti kenn wuyut am naa juróom-benni at mag laa te am naa juróom-benni laa ma xam ne ko la soxla ma xam ne kooka la soxla ma génn def saaw manin ma génn def samaw manin Moodu gi gëyoow Moodu gëyoow du yaru foofu sax du yaru foofa nee na du yaru foofa sax waaye loola laa xam boo waaye nee na booba laa loola laa xam te xam naa ne yitteem la te xam naa ne yitteem la Moodu Gueye ñëw Moodu Gueye ñëw la mu wax ak moom nag dégguma ko la mu wax ak moom nag dégguma ko waaye gis naa ba mu demee waaye gis naa ba mu demee soxna Awa Bousso la àndal soxna Awa Bousso la àndal mu ngab léegatug laaxub basaab mu mu yor léegatug laaxub bisaab taaj ko fi sëñ Tuubaa taaj ko fii Serigne Touba. mu ne ko xaw a ñëw nga. mu ne ko xaw a ñëw nga. mu ne ko ko waaw kay balaay mu ne ana fere ya. mu ne ko ana fere ya. mu ne ko ñu nga ca kër ga. mu ne ko ñu nga ca kër ga. mu ne ko lagal woo leen. mu ko lagal woo leen. mu dem jiital sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou. mu dem jiital Cheikh Moustapha Mbacké ak Cheikh Mouhamadul Fadal. ba ñu ba mu ne dikk ba jàmm. ñu àgsi. ba ba jege ko. mu ne xam mu ni xam ngeen kii joxoon nañ sëñ Omar joxoon nañ sëñ Omar ñu ree na ko bàyyi di kii xamuñu ko ñu ree ni ko bàyyi di kii xamuñu ko mu ni kii seen bàyyi mu ni kii seen bàyyi Omar yow xam nga ñee Omar yow xam nga ñee ma ree na ko déedéet nee na mu ree ni ko déedéet mu ni ñii say doom lañu mu ni ma ñii say doom lañu Modou Moustapha mii Modou Moustapha mii yéen a bokk ndey yéen a bokk ndey te yaay bàyyam te yaay bàyyam Falilu mii Falilu mii yéen a yaay na yaay len xam yaay ndi jaay len xam te euh, di bàyyam bàyyam ràcc laax boobee. daal di ràcc laax boobee. jàng tëfli ci. jàng tëfli ci. raxasu ci sa tax la xànjar gi fi ne. ci sa tax la xànjar gi fi ne. ni bisimilah. ni bisimilah. maa ngi koy xool nag ndax asamaan set na léegi. nee na maa ngi koy xool nag ndax asamaan set na léegi. mu ne làqar cel kaala gi. mu ne làqar cel kaala gi. nee ñu jàkk. ni ñu jàkk. ku rafet la. ku rafet la. te jekk waaye dafa jib. waaye dafa jib ne loolu keroog laa ko mos a. nee na keroog la ko mos a gis. jib ji mi ngi ci mboolem gaa yi toog sëti yëpp am nee na jib mi ngi ci sëti Sëriñ Tuubaa yëpp. am nañ ko koo ci gisul jib ji ci kaw it. nee na koo ci gisul jib ji ci kaw it. am na ko ci biir am na ko ci biir. sama baay ne. nee na sama baay ne. moom ñu laal tuuti. nee na ñu laal tuuti. moom tuuti la ne nii ci kaw jib ji nee man gisuma mu ngaa gisuma. nee na tuuti la laal ci kaw jib ji. nee na gisul mu ngaa gisul mu def. mu raxasuwaat. nee na mu raxasuwaat. dellu ci mbind ma. dellu ci mbind ma. gone yi ne ma ah, gan gi. gone yi ne ma gan gi. gone yi ni ma waaw gan gi. wool saa baay mu ñëw jël si ndab li. saa baay mu ñëw jël si ndab li. ma dikk na juuf moom ne ko bàyyi sëñ bi. ma ñëw ni sukk fi moom ni ko bàyyi sëñ bi. ma ma gees bëtam yooyu ne bisimilah lu mu doon. mu ni ma gees ak bëtam yooyu ni ma bisimilah lu mu doon. ma ne ko gone yi nee nga ñëw fab ndab li. ma ne ko gone yi nee nga ñëw fab ndab li. bisimilah mu ni bisimilah. dañu lay yónni. dañu lay yónni. yow yaay seen kilifa. ah yow yaay seen kilifa. ngay seen bàyyi mag leen. ngay seen bàyyi mag leen. ñu di la yónni. ñu di la yónni. daal di bëri. daal di ni leen bu ngeen ngeen. ñoo ko waaw. ñu ne ko waaw. mu ne yow nag damaa dégg nga wax ma kaddu gox. mu ne yow nag damaa dégg nga wax ma kaddu gox. xam ne nga baay ak maga. xam ne nga baay ak maga. ma ne ko déedéet. ma ne ko déedéet. mu ne kaddu gi ma wax de maa ngi yow a ko bokk. mu ne kaddu gi ma wax de maa ngi yow a ko bokk. noo bokk baay dégg nga. noo bokk baay dégg nga. ñii nag yaay seen baay. ñii nag yaay seen baay. gan ñi gone nag na ñokket nee na gone nag ni ñokket na gan gi nan dem ci kër ga ni gan gi nan dem ci kër ga ñemewu maa jóg nee na ñemewu maa jóg ma xool ko fekk ma di ma xool ma xool ko fekk mu di ma xool mu ne ma jàkk ni ma da laa bëgg a ànd ñooma ah? mu ni ma jàkk ni ma da ngaa bëgg a ànd ak ñooma ah? ma ree na ko waaw mu ne ànd leen te bu leen tàggoot mu ne ànd leen te bu leen tàggoot ànd leen te bu leen tàggoot ànd leen te bu leen tàggoot nett naa ko sëñ Saliou nee na nettali daal di toogaat ndeysaan booba ak tey nag nee na booba ak tey nag tàggoowuñu ñoom ñooñee ci dara tàggoowuñu ñoom ñooñee ci dara genn subak àllarba la leen woo benn subak àllarba la leen woo sëñ Omar sëñ Mor Moussa sëñ Fallu sëriñ Omar Cheikh Moustapha Mbacké Cheikh Mouhamadoul Fadal yóbbu leen ci dimb gii ci kër sëñ Sohaybou mu yóbbu mu yóbbu leen ci dimb gii ci kër sëñ Falil ñu fekk fa ñetti alluwaay xaaj sëriñ Saliou ñu fekk fa alluwaay xaajar ci kër sëñ Sohaybou dimb waa ci kër sëñ Sohaybou mu fekk fa yetti alluway xànjar mu fekk fa yetti alluway xànjar nu àgg suuf mu ne baa siin miim nee na ñu àgg suuf mu ne baa siin miim ba sóoratu yaasin ba sóoratu yaasin sëñ Tuubaa nu bindal jàngal nu loolu sëriñ Tuubaa moo ñu bindal jàngal nu loolu loolu yi nee na nu keroog nee na nu keroog da ngeen nangoo jàng da ngeen nangoo jàng nu ne ko waaw waaw ñu ni ko waawaaw waaw mu ne ko ko ci nangu day mu ni ko ko nangu day loo bëgg dinaa la ko defal loo bëgg naa la ko defal ci fii ñu ne ci fii ñu ne ak bu ëllëgee ak bu ëllëgee gaaw gee xam nag. gaaw gee xam nag. gaaw gee xam. gaaw gee xam. ak bañ gee fàtte. ak bañ fat fàtte. nekkul ci yéen. nekkul ci yéen. ci man la man la ne. ah loolu. kon jàll ah kon loolu. nee na nag mokkal na ci moom juróom benni téeméeri waxtaan. ah sëñ Thierno nee na wuy juróom di sëñ Omar mokkal na ci Xaadimu Rasuul juróom benni. téeméeri waxtaan. duma fekk dikki leen mën a kaay leen. nee na duma fekk dikki leen wala kaay leen. waxi sëñ Bamba. waxi sëñ Bamba. duma ko yokk. du ma ko yokk du ma ko wàññi du ma ko wañ du ma ko jubbanti du ma ko jubbanti loolu sëñ wax loolu la sëñ Omar wax mais sëñ Bamba nag ànd na maag moom ñeent fukki at yu manqué tuuti nee na sëñ Bamba nag ànd na maag moom ñeent fukki at yu manqué tuuti loo xam ne lépp lu ma digal def naa ko loo xam ne lu ma digal def naa ko lu ma tere mosuma caa jaar ak sama tànk lu ma tere mosuma caa jaar ak sama tànk te lu ma wax fàttewu te lu ma wax fàttewuma ko. ba ma tàggoog moom ba tey ci saayir. ba ma tàggoog moom ba tey ci saayir. maa nga ca ma batale woon. maa nga ca la mu ma batale woon. kon nag bu ñu nee fab leen kuur yeeg tuq yi dem ca walandoo. kon nag bu ñu nee. fab leen kuur yeeg tuq yi dem ci walandoo. sunguf yoonam newu ci. sunguf moom yoonam newu ci. man Omar Mbacke sunguf laa. te man Omar Mbacke sunguf laa. kookee nag lu ma ñàkk ñàkk solo. kookee lu ma ñàkk ñàkk solo. moo ma te jël naa ca jëlee naa ca lu ma doy te si Omar nee na jëlee na ci fu ma dem rek nee na fu mu dem kookaa ma fa yóbbu ko fa yóbbu waaye du leneen waaye du leneen kon nag man maa ngi gërëm ñëpp suñ ceerno ne mi ngi gërëm ñëpp mi ngi sant ñëpp mi ngi sant ñëpp yaari aajo rek nag am ñaari aajo rek am yaari yitte am yaari yitte am soxla su adduna soxla su adduna ak su sa àllaaxira ak su àllaaxira jëpp taawaati xool ju fi waay indi jëpp taawaati xool ju fi waay indi waajoñ yaram maa juj yaram maa joo xam ne joj xel la maa joo xam ne joj xel la yal na ko sama borom saafara yal na ko sama borom saafara may leenu wér may leenu wér may leenu milliard may leenu milliard may leenu déggoo may leenu déggoo ci lépp ci lépp dana ànd ñun ñëpp dañu ànd ñun ñëpp liggéeyal sëñ Tuubaa ba faw liggéeyal sëñ Bamba ba faw loolu ñoo ki ñaanal ba salaam ah sëñ bi nee na ah xanaa dafa mel ni waaw sëñ Thierno jërëjëf Cheikh Moussa waaw moo ñëwoon waaw da damay daaneel sama kàddu rek ci kilifa gu baax gi nga xam ne Cheikh Moustapha moo ma waxoon ma woo ko wax ko bis bi mu ñëw ànd ak ay rakkam ñu ñëw yendu ci ba nëgëni ñu bëgg rek xam ni moo taxaw nii tàggu na sëriñ bi ba mu ñaanal ko kilifa bu ñëwee dañu war koo xam bu jógee di dem dañoo war a xam kii dem mooy kan ku baax a ngi nii ku am lislaam ngi nii ku bëgg Cheikh Moustapha Mbacké ngi nii kon sëriñ bi jërëjëf bu ñu fàtte ci ñaan Mbàkke Cerno nee na sëriñ Moor Penda Mbàkke mi taxaw ak sëriñ Tuuba ñoo bokk baay nee na sëriñ Baara di bokk ak Cheikh Moustapha Ndeye ak am na ab yar am nay teggin am na xam-xam am na sago am na njëriñ kon nag taalibi xewul islam waam xewul islam waam mu diine waam waam mu diine wu ne te mu yëg ko te mu yëg ko dana fa taxaw te masumaa gis mu taxaw fenn nag te masumaa gis mu taxaw fenn di fa distaane soxla di fa distaane soxla man daal sëñ bi li ma gën a soof moom daal nee na li ko gën a soof sëriñ bu amut l'islam mooy sëriñ bu amut l'islam te fonk tege te fonk ab tege nag. di teg say bokk. di teg say bokk di teg say bokk. ak di teg taalibe yi ay addiya. ak di teg taalibe yi ay addiya. ku ne nga di ko teg lu mu. ku ne nga di ko teg lu mu mënu. lu ne war la. lu ne war la. te warlu woo dara. te warlu woo dara. boobu sëriñ Sow. nee na boobu sëriñ Sow ma. kon nag ñu déglu. waaw léegi rek dama la gis at yu yàgg ci biir la waaw Mbacke waaw suñu Cheikh Thioro Ba waaw waaw si sëñ Xaalis ak jot bi am daal wala moo gën di waaw waaw waaw sëñ Ba day day toogaat nee na day toogaat kon ndongo yi da ngeen di toogaat maa ngi dégg waaw sëriñ Bass bi ko sëriñ bi waxee rek la soxna bu moo ko bu sa Mbàkke moo ko jur dara amati xarit maam Baye moo may moo ko sëriñ Moussa borom daal sëriñ bi xaadim mu sëriñ seen ma doon de la ñu wooye Baye sëriñ Modou moo tàndal la ceer la permettre sëriñ Mbacke Mar mi mel ci jaar yi ak murid jërëjëf ah sëñ Galas nag daf maa wax ni ma xaar bu jubee gaar day koor ne ma ay bayit bayit yéen ngi gàtt lay doon mooy yow sëñ Bay Jaxate waxoon sa maam rek yooyu laa lay ubbile yow sëriñ Galas Kaltoum di jëmm joo xam ne ku am yar ku ami teggin waaw te am njëriñ nag xam na lu sa maam waxoon sëriñ Touba may ko ma boole ko ci. waaw maa ngi ñëw ci yéen de. Serigne Ba Jaxate dañu saa koor ak sama julli faww ba. bu nuy woor a kay jullee ka wér di nga ko man. def naa ko muy saa xam-xam ak sama diine it. solo jàllul Bamba yam naa ci moo fi gën. man man dootu jëm ci lu dul biram lu dul jëm ci moom ak mooy la teg mooy farul dagan dama lott def lott ci bàyyi moo waral ma jibal ko saay mbir génn ci dee lekki fen ku lot dafay fab ay mbiram yëpp jox ka man mu fab koy defal moo gën di yàq ka def lu bon dinaa génn ndaw ak mag ci saa mbiri bopp yi te tabal ci waaneew wii réy lu bosen ngir sëriñ Tuubaa bu jàppee ku tuutee tuuti bay toll ni basan mu soppi ko ak sukkal bu rëy bu rëy yu jege samaam bu jàppee ku daan xaaraan ak ay sol sagar yu bon mu jébal ko daggaak ci baay mu boole gën samaam bu jàppee ku ñuy teegee ka yàq ab deram mu def ko jaw mu nit ñëpp xëy dugg far samaam bu jàppee ku daan mooy yàlla ak yonnanam ba nag mu leeral digganteem ak boroomam nu far ko tin kon ci lay mat a jébal mbir mu yor waane waa ngi nii jongay naa ci jébbal naa ko léppati faw man di ko sëriñ bi bégal sab xol bi sedd nga sant yow ku yàlla bégal de te yàlla bégal na la ndax ku lay def moroomit xam ne xel ni yaa ko man lewet noonu la Mbàkke ko noot gay na seeg ma fër dàq ñay mu daw du soowoo ki tewe yi yàlla gis na la sëñ bi kaddu gaa ngoog ah sëriñ Galas nee na asalaamaaleykum waaw ñu déglu la sëriñ bi ñu déglu sëriñ bi déglu leen asalaamaaleykum Sëriñ Galas Mbakke nee na asalaamualeykum. nee na mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. ci turu magam ju baax ji di Cheikh Moustapha Mbakke. ak ci turu Cheikh Abdoul Ahad Mbakke mii waral ngan gi tey. di jiital nag ci nuyoo bi Sëriñ Abdoul Ahad ak Serigne Thierno Mbacke mii doon waxtaan te toog teg ci Baye Cheikh Awa Balla mii toog ku fi teew rek. Serigne bi di Cheikh Moustapha nee na am na kaddu yu mu ko yóbbante ci Cheikh wax dëgg yàlla nee na kaddu yi jafe na ci moom lool pour mu jottali ko. mu ngay wax léegi ci mu wax ko nee na li ma doon léegi ci sëriñ Mbaye Diakhaté mu wax ko sëriñ Touba. man na moom mii. dal na ko sama digg ak sëriñ Moustapha Mbaye. na ko digganteem ak Cheikh Moustapha mii. ñun na ñun ñëpp ñoo bokk Alaaji أبقى سلام الكريم سمدي على النبي وسيلة waaw kër Moussa Mbacke tamit déglu leen rek waay déglu leen déglu leen déglu leen dafa wax ni jaara iman na ko dugg barkeelu ci da ngeen di toog rek ci biir programme ci ñu ko jox mu téye ko xam na la i def nañ ko bàyyi mu daal di gàddoom ci lay jàng. waaw ah, jërëjëf maanaam li ñu tëjee mooy yaaraayu la li ñuy wax lépp ci lañ mu sawaar ci jikko bu di taalibe bu di Sëriñ Tuubaa loolu tax yaaraayu man bu jikko waaw yaaraayu ko woy Sëriñ Tuubaa ndax bi ñu sëñ Moussa Ka di wax ñoom naan sëñ Touba yaaroon ñu naan jëloog la tool yow liggéey ba mu musul ba def xalifatu rasul bàyyi nga moo leen xam xaar daan dëgg rasul alxuraan daan dëgg rasul bu sëy daan dëgg rasul mën nga leen di xam sëñ Touba di ahlul fasaha ci turan di turan ma dexoo wala ñu saytu waa Zanu kon boo sëy bi xam baroo ba kudum si ruur nuuru wa salaam te ah, loolu lay tontu la de sëñ Fallu it da doon liggéey sëñ Tuubaa ba noppi xale ko di ko takk ñu sëñ Tuubaa daan liggéey Musaa ba noppi di ko takk yaaraay man moom si Musaa mi da ko ñor ngir saa su ne buñ ko dee fàttali ko day tax kenn ku ne xam ne sëñ Fallu moo ëpp ñëpp parti gën gën ñu ne jege borom Tuubaa ni ko sëñ bu baax bi waxe sëñ jar waaye xoolal ñi muy way sëñ bu baax ak fi mu ko teg ba tax lu nu waay mën a di ëllëg yoo xam ne dañ tubaab amul lu ni mel ndax dañ ko ko woon moo tax mu ne yaaraa yi man nit la sey masalan ala sa gaaw dañuy tàggoo gis ku mel ni soo dégg ñu borom jumaa yi masalan demal ndànk ala sa gaaw doo ko teg bët loolu teg bët nag daa ko def ndànk ñu ne ko bu jëndee mu ne tabaarakallaahu man fi anami xawsan jalla dañ ko leen dañ tubaab suñu borom moo bëgg a xetali gi nii di tax mu wàcce dañ tubaab jaar dunya ngir ma xetali gi nii def kuy sa sëriñ mu ne sama sëriñ la nattul xumaamul latifun suwal muqaba sumaw ak soppe la nee na ak soppe la ak ñëwal naa kon la ñu ne bu ñu tudd mu ne turu yàlla bisimilah si leen mooy turu moo ko ci moo leen turu moo mu tudd Makki moo mu tudd Makki ñu ne kuy sa sëriñ mu ne xatbaa ak yeneen ñi wal jawdi wa naqaa wa tuqaa yéegi ne ñëpp di xam-xam yéegi ne ñëpp di xam léegi nag ñëpp dégg nañu ak ragal yàlla moo tax sëñ Tuubaa fekkoon na bi jàppal waaye la tax ñu ñëw tey loola gëm sëñ Tuubaa di benn bi di jaraba ci moom xam naa xam ne yéen mi wala jóoti wala naqaawa Tuubaa ñene sëñ Fallu buy nëri mu ne sama bëri maasali leer jafe yi muy doo di daw mu ko ngay mukk di gi nit bi saxale ko ngërëmal yàlla ndax lu mu la defloo boo ko demee nan ko bëgg am ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla rek la nit nit loon lay ak bëru ful bëri te moom lépp lu mu la defaloo soo ko defee lan ko bëggee am ko doon yàq ñu ne sëñ Ba jiw bëri mu ne dama sëñ la ba xalaat naa andi sa réew yeneen loo xam ne xasaw néew la boo ko tegee bët moom sama sëriñ te fekk ko dañ ko kàttan kooku wegee waaye daal ñaari melo dañ ko war a mel ni kàkk sax ñu ne sëñ Ba lu mu mel mu ne waxee ko tuuti ko jéemalu pour mënu daal suñu bopp pour rafetlu la boo ko gisee doo ñëwee def waaye bu rafet la ba ba muy nekk jotaayu jotaay bi dootul a saf ndax moom képp ku ko yaakaar ba ragal sax mën mun mun a ji ma wu ñu ne dañ doon kii bi mu ne kabaru baslu ba basul li mu jëlee woo daal ñaari loxo ya bii day joxe kii képp koo xam ne kaa ñëw ngir yàlla bi man jotaay yëpp yi laal sax yu ñu doon suufoo basul ba basul li man laaw na ma mën jël jaay ngeen ñu daanoo naan la. dañ doon baal kuy de sëriñ mu ne maa ngi lay yëpp ñu fa indal. daa xaaral daal ñu ngi koy jaww. sëñ Fallou nee na sëñ Touba sama Moussa Diagne di jege ku bëri ñu ko doonoo yaakaar yi ku ko yaakaar ñu ne ko ku ñu sëriñ mu ne ak yu ji nii mu ngi ci loolu ci man ginnaaw taw bi yëpp nekk nga ku nekk soo sëriñ ah est li quoi comme que ni est li jaam ñi ak ñeexum ñeex ko ci sëriñ Fallou nee ko ci biir yëpp xool lu ñu mel anaana anaana mango raisin goyab ñoom ñëpp ñu yorandoo loolu ngay ci teen bi loolu dañuy gëm da nga naan boo demee ci teew bi moo tax ñoom la doon sëñ Baye def suñu saa ñu loolu ko ñor moo tax ñu bëgg seen laaj nii loolu bëgg waa Kër Boye ñu bëgg seen laaj nii loolu la bëgg waa Kër Boye man agriñ bi ñun moo koy jël xooloo ci bari jëndaw ci gerte mu ne kii la woon dara yoo xam ne ñu ne yaa ngi gis yow. kon doomu maa moom neex amal bëgg ñeena sëñ Tuubaa affaire bi di wax te yokku ñii ñeenti di ci waaw xale bu gis ci waaw day dem ci ngay bëgg leneen sëriñ Ba leneen la soo bëggee sëriñ Tuubaa nekk doog rek nga bëgg naa sëriñ Tuubaa mais boo tudd boo nga wàññi ko ndax bu noppee yokku da ngay wàññi ko ba bëgg ci day yokku yàq daal du fi bu léegi ndax xal bi fii ci am waaw day dolli ko moom bëgg ci sëriñ Tuubaa te xal bi saa su ne ñu ne ko lu tax sëriñ Ba lu ne képp ku lislaam ñor suñu borom ñoom la l'islam moomu yàlla def ba muy diine donc Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam Seydina def na ci loo xam ne war na war na laa ñëw yàlla def diine na ah ah kàddu wax ak banaaw kon comme que du mooy rëgal xarit bi war na raw ci jàll loolu la mujjee jooy dañ ko lu leer mu julli waxtu yu juróom dem parce que a xam a tax am xaalis mënoo ci gis Sëñ Tuubaa safara sa des na mm-hmm. kon sëñ bi xam nga lu ñu wane seen mag ñi jaaxalu leen génération bu ndaw bi dox ci moom dafa fàkke am ñu ngi nii taalib bi xam nga lu mu leen di wax Sëriñ Tuubaa rek a fi def nan jàpp Sëriñ Tuubaa nan ko foog nit mun ta jaay dara lu la ñu jiitu woon ëpp leen bu dee xaalis ñu ko kenn amoon na ko di lem di takkaay yore milliard ba noppi nangoo yaru bu dee xam-xam wala nga jàng tubaab xanaa solo moom ci maa bokk bàyyi lu mu ci doon bu dee xam-xam si dama juróom man si doro dañ jeex man seen leen doon xel ba sëñ Balla bi ñu tudd su ko feraw niw euh, ci baara nag kon léegi bu tee ba jamono ñu dem ba ñu am modernité bi tax ñu bëgg am lu ñu dugal tey jii dañ tubaab tey jii dañ tubaab boo xam ma jàpp la mu nangu dañ tubaab ma nga jàpp ko na xarit na nam fulla am fayda wooy ko bu dëgër wari borom léegi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 في كل سهر وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر السفر